GM koñ bi génn leen ana ñi waxoon danoo xuloo waa dëkk bi génn leen ana ñi waxoon danoo xuloo <laughs> ma ana ñi waxoon danoo xuloo laa wax génn leen fu ngeen ne. <laughs> danoo xuloo. nii nii dama ko bàyyi. <laughs> ana dof yi doon wax danoo xuloo. bàyyi leen seytaane bàyyi leen seytaane bàyyi leen bëgg ay ana nooyu tas. bayalen ay nit yu fewlo ngeen ni kontaan dan waro len ya togn ma ñu ko yaa tooñ tooñu ma kenn xuloo ñu mësuñoo xuloo. naan dinaa la invité plateau. dama la invité plateau nga wax kan mo jotté <laughs> ana invité kat yi. <laughs> okin xulo okin ñu ngi leen di ñaanal kooru jamm yalla defal leen jamm may leen suutura may leen wër ak wër leen yalla téye seytaane yépp ak nafiq yi yi nga xam dañuy recc ci wëru koor gi. <laughs> du gar leen seen ngunu seytaane yi. neen wo ila leqa. والى اللقاء امام نينا والى اللقاء <laughs>